liñ fas yéene waxtaane itam sox jamono laaj na muy ne ren daaw dañ leen ci jikko yu yàqu yi ren nag ñu tànn leen waxtaana jigéen ak ci waayam ci lislaam yaakaar maa ne loolu baax na loolu ñu xam ndax jamono bi ñu toll bëri na lu ñu gis luy yàqu tàmbali ci jigéen ñi te li leen ko li leen ko def mooy daa am ñu leen nax rek ba xamuñ yitte ji leen lislaam jox ak wàccuwaay bi leen jox kon nag day baax ñu koy waxtaane loolu ba ñu xam seen wàccuwaay bi leen lislaam jox ak yitte ji mu leen jox defee mbokk mi dana waxtaan ak yéen ci loolu dana tax bu ci jëlee ay bind bu ëllëgee danañ xam suñu taxawaay rawatina ñu yàlla lay dogal ëllëg ñu nekk ay yaay ba gone bu mu doon ci seeni loxo ngay jëkk jaar kon ñu jox seen bàcc tàmbali mbokk yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu gannaaw bu ñu leen yoon noo ngi leen di ziyaara bu baax di ñaanal ki fi nekk Sëriñ Tuubaa sunu borom yàggal ko fi lool dolli ak wéram ba yéeneem ci lislaam mu àggale ko di ko ñaanal mboolem bi ñun ñëpp di ziyaara bu baax mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci baat bi di ci jiit kii fi nekkal sëriñ ñaan Jóob di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi mooy di siyaar bu baax mbokk yi ñu fekk yëpp di siyaar sëriñ Muhammad sëriñ Murtadaa maa di siyaar baax di siyaar sëriñ jiidi bi nga xam ne moo ñu boole ak mbokk yi sëriñ te am ngànt ba tax egseewul xanaa di doglu ngànt rek ci kàddu yu ñu bëgg a yëkkati ci teewaayu boroomi xam-xam ak ci teewaayu ay kilifa xañ ne dañoo ñëw rek ngir fàttalante ci li ñu seq muy lislaam waaye nag di tomb bu ama am solo muy jigéen ci lislaam xañ na danañ ko tënk rek ci jiital li nga xam ne mooy jigéen laata lislaam xañ na ci tënk bu gàtt gàtt rek taxawaay bi mu condition yi newoon ngir ñu mën a xam nan lañ war a jàpp lislaam danañu leeral lenn ci yi nga xam ne góor ak jigéen ñoo ci yem benn wàccuwaay waaye danañ andi li nga xam ne nag comme jigéen lañ jagleel waxtaan bi moom moo ko yeyoo moom lañ ko féetale di ko xàcc ñaari tomb muy lu ñu tuddee alxijaabu sharciya wal xijaabu batiniya muy li ñu tuddee xijaabu sharciya muuraay bi nga xam ne wala fegu gi nga xam ne lu feeñ lay doon muy ci comportement waaye ak fegu gi nga xam ne ci biir lay nekk manees na ne ci jikkoom lay nekk buñ ca jógee teg ci na li jamono andi muy ay jikko yoo xam ne manees na ne lislaam gërëmu ko jigéen di ko jikkoo te li ci ëpp du sunu culture lu ñu andi la rek wala ñu koy gis ci télé yi wala ci internet bu ko defee dañuy daaneel rek mooy jigéen ban taxawaay la war a am ci këram mooy bu fekkee ni yàlla jox na ko borom kër kon ñu xam ne lislaam buñ dee wax ki gën a jox ki gën a jox cër jigéen ma manees na ne lislaam ndax jigéen ku ñàkkoon ak cër la ci lu njëkk lislaam di ñëw daanaka manes na ne jàppuñ ko sax doomu aadama maanaam jàppuñ ko nit bépp coono wala bépp tiis mu mën doon rek daani daanañ ko ko teg ngir jàppe ko loo xam ne lu woyof la loolu xam ngeen ne alxuraan moo ñëw jox cër jigéen mu war a doon li ëpp ci nit ñi sax dañuy wax ne góor ñaar jigéen benn wante góor ñaar jigéen benn jooju manees na ne ab sew sew a ngi ci ngir nit bu faatoo bàyyi fi góor ak jigéen buñ joxee góor gi ñaar jox jigéen gi benn jigéen ji mën naa am borom kër borom këram may ko alal bi du jeex mu denc wala mu lëggee bu fekkee góor gi amagul soxna ñaar yam amoon bu ci wutee soxna lëggee ci jeexal te bu noppee mooy yor jigéen gi jigéen geet bu demee këram bu fa amee ay jafe-jafe bu ñibbisee góor gi ko yoraat kon day mel ni loolu ak maam la te am na ci barab yoo xam ne sax góor ak jigéen ñoo fay tolloo lu aju ci wàllu ay doomi ndey xañ na du jar di ci leeral waaye liñ ci jublu rek mooy lislaam bàyyi na ko xel wante lislaam jox na ko ak cër doy na ci sëkk rek nga xam ne buñ ci yemoon tënke ko mu doy muy laata lislaam di ñëw ki am doom bu jigéen ñaari xalaat rek la ciy am benn xalaat bi mooy mu tëyee ko di doyee maanaam du jar dara ci dëkk bi ci am doom jigéen du du jar dara ci dëkk bi xalaatu ñaareel bi mooy mu gas ko suul muy dund ñaari xalaat yooyu rek la nit amoon ci jigéen bi lislaam dikkee nag aaye na loolu lépp ndax kenn ku nekk daañu la laaj ana bakkan bii ci ban bakkaar la def ba tax nga rey kon loolu danañu xamal ne jigéen teguñu ko woon fenn lu jur lislaam alxuraan moom misaal na jigéen nim ko yamalee ak góor ci ak maanu motax mu ne kum ci mana rek ku ray bakkan te tay ko muminan mutahammidan waman waman yaqtul muminan mutahammidan fa jahannam kon loolu góor ak jigéen ñoo ci yàq kon loolu dinañ ci dégg ne l'islam ku bàyyi xel jigéen la kon nag li ci des ci moom lay doon moom moo war xam li ko l'islam defal ak fa ko l'islam jere, ak fi mu ko andi mu xam nag ban wàccuwaay la war a jàppe lislaam wàccuwaay bi mu ko war a jàppe dara jiitu ci lépp lu ko lislaam digal mu xam ne moo gën ci moom ndax intérêt moom la koy aaral moo tax buñ ne muuraay ci lislaam nii ñu ko miine jigéen la ko lislaam féetale ndax xam ngeen ne góor dañuy wax ne di tàmbalee ci jumbu xam ba ci bati woomam rek mooy awra waaye moom góor waaye bu dee jigéen nag mbooleem aw yaramam lu dul xar kanam ak tenxam loola dañ koy boole ci li ñuy tudde awra moo tax alquran sax ci bàyyi xel bu mu bàyyiloo xel jigéen fekkum wala fek mu wax ne wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab bodo doon laaj jigéen dara sax nang ko laaj te ki ray dox seen diggante lu jaagi nak mi ray dox ci seen diggante waaye na fegu fegu boo xam ne xelam du nek ci yow wala do ko fitna dañu wax ne aaya bobu mi ngi wacc ci atum juromé ci weeru zilqinda seydina umar radiyallahu anhu mo wax yonte sallallahu alayhi sallam ne ko ay bo waxon jigéeni jullit ñi ñu mel nangam ak nangam ak nangam ndax ku baax dafiy dugg ku bon dafi dugg ci la aaya boobu wàcc nga xam ne kon muuraay farata la kenn waru koo sañ bàyyi te di ko tay alquran feddali ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il muminina yudnina alayhinna min jalaabibihinna kon loolu alquran la yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal say soxna ak say doom ak mboolem soxna yi jullit ñi ñuy suuturaal seenu yaram mooy ñuy muur jaam lañ xamee woon sàggane aw yaramam gor ñu ngi ko daa xamee ci fonk aw yaramam mooy di suuturaal kon loola lu ma bàyyi xel la bokk na ceeb buñ ne alxijaab du caagi ne muuraayu kese la ndax day am lu tax mu mën a fekk boppam ndax bu doon muuru bay daje te téewul muy wax waxin woo xam ne lislaam aaye na ko wala doxin te mooy ñàkk yooye day xajamal la muy def ndax nit ki bu muur woon ba daje faaw mu am melokaan comportement boo xam ne ki la ñu xamee ne kii kat lii muy def ñu ngi koy dund moo tax mu wattandiku loo ko lool guddal ak gisam waaye nag mu wattuloo ko boppam xul lil muminaati yaxdudna min abseerihinna wa yaxfadna furujahunna waxal jullit ñu jigéen ñi ñuy damm seenu gis waaye nag ñu wattu seen bopp ñu wattu seen bopp waaye nag seenu taar ñu di ko bañ di feeñal maanaam ñuy bañ a feeñal seenu taar te muuraay it ba tey dafa amul chart wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna xam nga bu dee fii ci sunu aada ñi ñi ñi yëngu ci wàllu sol wala ñi ñaw dañoo baaxoo yére bu ñu ñaw benn danañ xóotal lënd bi wala ginaaw loolu nag la koy waral mooy ngir nit ki mën a sol yére bi mu xaj ci boppam ndax bu fermi woo ci baat bi du mën a xaj ci boppam moo tax alquran nag boo solee yére boobu ba noppi muuraay gën a wàcc ba ci sa dënn nga xam ne moo la digal muuru jàngal la dañu koy deme mu mel ne loolu ba tey nit ki moo koy bëgg rek waaye ki ki bëgg a sol mën naa sol loo xam ne dana dana dana fermi moom dana fermu ci baatam te du tee mu mën a dugg ci boppam jigéen ñi dinañ xam li may wax yére yi ñu sol yu ci ëpp dana am fermeture boo xam ne deemu taabal lay doon nga xam ne dangay sol ba noppi door a tëj fermeture bi kon ñàkk fermo gi ak xóotal gi dënd bi wala xóotal ginnaaw bi lu ci ëpp nag yow lay neex waaye noo ko waxee tëjee bi mën na la ko ñaw mën na la koo ñawale mu jot te du tee nga mën ko sol kon loolu ba tey manees na ne njuumte la ci ni ñu solo mu waxit batay amna ne am na taar boo du nek lu ñu gis waye lu ñu gëd manam bu ñu dégg la mu jangal la sax ni ngay doxé ne la boy dox bul door sa tank ci suuf ngir lam ngir ab tar bo neub di yëngo ci yow ba jigit ba ko di ko dégg kon l'islam jangal na jigen melokan bi mu wara doxé li ci am solo rek mooy ñu ñor mooy mu ñor leen te ñu koy gëstu ba tey mu jàngal ko waxin fala taxdaxna bil xawl fa yatmaa allati fi qalbihi waxul na xawlan maarufa nit ki buy wax tey jigéen nee na bu mu damm kàddoom maanaam bu muy neexal kàddoom ngir bëgg góor ñu koy dégg am ci yëg-yëg dañu bëgg buy wax mu wax fut la te du nekk fu mu toll di wax rawante nag wax joo xam ne ju am njariñ lay doon bokk na ci ba tey mu wattandiku lool ab génn ndax Seydina Muusa wala abi Muusa al Ashari bokkoon ci saxaaba yi nettali na xadis boo xam ne dafa wax ne képp jigéen boo xam ne gëttu na mooy xeeñ na la koroñ génne këram romb aw góor ngir lan ngir ñu ne ko li nga xeeñ neex na nee na kooka ma ngay njaalo kon dañuy bëgg nit ki toog ci këram buy génn ci lu dul lu mënta ñàkk lay génn sëriñ bi loolu la digle woon دومي على الخمول والتستر ولتهفدي ضوتك دهرا تشكري نينا نغاي نغاي نبو موي نغاي سودورلو li ñu tuddé giim mooy bañ a bañ a bañ a fees bañ a feeñ waaye nee na sa kàddoot na nga koy suufeel ci booy wax kon loolu mayees na ne ay bind la yo xamne l'islam da ko andi jangal ko jigen ngir mu ngir mu war ko mel kon buñ ne alxijaabu shariya ñu ëpp dañ koy féetale ci muuraay waaye ba ci colam ndax nit ki bu muuru woon ni ko lislaam diggale mu muuroo ko te ak colam jotutit ba tey defut la ko wax kon faw ak colam mu am ci melokaan yu ko lislaam digal sëriñ bi ñu yaakaar nag di Cheikh Xadim radiyallahu anhu nga xam ne ñépp ay waxam rek lañ gëm lu mu wax rek dañuy jàpp ne moog liñ gis ba noppi moo ñooyam murid yépp loolu lañ gëm ndax bari waana lu ñuy wax ne sëriñ bi nee na kullu muridin bi yaluusu yasadu wa innahu min al azamu moy bépp murit ko aju ci mom texena lolou mom dañ manam yu neex yi dañ koy gëm lol sax amna ño xamne sax lepp lu sëñ bi bëggoon dañ koy bëgg amna ño xamne leg leg léeg-léeg day dëppoog seen bakkan ndax bari nañ ñu nek café dañ ko bëgg ngir li ko sëñ bi bëggoon waye fekk day dëppoog seen bakkan rek sëñ bi nak ma wax ne bi mi jàngale bay misal ci saadatu tullaab walam tanali din hatta tashkuri jismak ya zainab bi tamuri neena jigen gi am dine mukk ludul ba dafa sutural aw yaramam ci al mural kon ben ngi non bo xamne du am dine manam jigen gi dinem du mat li fek aw yaramam ngi fen gi baña nek ben mu baña nek tol bu wala mu bañ a nekk col bu gàtt wala mu bañ a nekk col bu yaraax te muy mucc ci yooyu yépp ndax bu jotee te mën a marqué ay cëram ba ku ko gis xam ne cër sàngam bi nii la toll loola wute na ak colinu lislaam wala mu yaraax lool ba ku jàkkaarloo moom sax xam ne yaramam bi nii la mel loolu du colu ab julli bu jigéen wala nag mu nekk col boo xam ne bu gàtt lay doon te xam ngeen ne col yi bari na lool te lu ci ëpp dañ koy roy rek jigéen bu fekkee ne mel na nii muy col gi ko lislaam digal dana tax bàkkaar yu bay wàññiku ci seen diggante ak góor yi benn safoor nee na Dakar lay liggéeye waaye jaaxle na lool ndax mënoo gëm mu di dawal te nee na saa yoo siggee rek kii traverse di di jéggi ci tali bi sax lañu sol baaw kon loolu mooy jamono toll na boo xam ne nit ñi ci bàkkaar la dund ndax ci jigéen ñi lay baw bokk na ceeb bu melee nii ñu wax da koy jox wàccuwaay tey bu nit ñëwoon ci jataay fekk fa ay jigéen am na melokaan bu ñu mel dana leen jox loxo bu dee kuy joxe loxo waaye nag bu dee ku muuru sol col gu jot soxna si la koy wax maa ngi siyaar kon loolu wàccuwaay la bu ñu la jox même ci oto yi sax am na jigéen nu mu mel da gis góor jóg jox ko mu toog te du nekk mag waaye melokaan wa mel moo moo ko waral kon lislaam lu la digal rek xañ na am na lu tax mu digal la ko bokk na ceeb muy loo xam ne bu ko nit ki doon def dana dana ko wàcc wàcc lu bare bari mooy bu doon muuru ni ko lislaam digale di ko soloo dana ko dimbule ci mu wattani ku bàkkaar yu bari te bokk na ci bi nga xam ne day war a rëbbum yàlla muy jokku karaw laana allahu alwasilata walmustawsila sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu boroom rëbb na kiy jokk karawam ak ki ko koy jokkal te rëbbum yàlla manees na ne rek mooy yërmandeem sori la te xam ngeen sunu boroom li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne comme atte te atte mu yërmandeem faaw nga nga texee maanaam xaw nga al kon loolu dana ko ko sàmmal ba du ko def te yu ci ëpp mënees na ne yu ñuy naxe la ndax mbooleem xeet yi ñu roy ñoom lañuy def gëmuñu yàlla gëmuñu lislaam yow lu ko gëm nag war ngaa wuute ak ñoom ci comportement comme ni nga ak ñom gëm-gëm alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibé yi no ngi leen di nuyu nuyoo ndonga li gëna xébu ci ëttub sëriñ ñaan job ci biir kër Cheikh mohammedou Lamine ci biir kër sëriñ Touba dem ci ay sangam yu tedd ay kilifa yu tedd yu am way di njabootu serigne Touba gi tok ak mboolem taalibe Serigne Touba yi ne ci baas bii nuyoo yooyu ak ziyaara yi nag comme yéen a ma xoj nag da ngeen may bàyyi ma noyyi parce que waxtu wi dafa xat te dafa mel géej ñu ne la rek géej a ngi nii nangam nangam xaar ba may leen ma rek ma jël benn siwo woo tànk nag jéem a sangu rek loolu rek laa ci jéem waaye dafa am loolu mënta ne ci waxtu wu xat Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na ko fi yàlla yàggal tamay ko ak wér ak mbooleem taalibe Sëriñ Tuubaa yi wax ji nag dama koy jëme ci tool bi ak ci mbay mi ci biir tool bi ak ci baykat yi ci seen jëm dafa mel ne duma ci nag mën a ñàkk boole boroom tool bi loolu su ma ko waxee daal dama leen waxoon bokk gi sëriñ bokk ak mbooleem ku baax ci yoonu murit ak ci biir senegal wax leen ni pas-pas bi mu amoon ci Serigne Touba ak liggéey yu rëy yi mu ko liggéeyal ak liggéey yu rëy yi mu liggéeyal njabootu Serigne Touba gi rawan rawatina Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moom la ko Serigne Touba boole doon ginnaaw bi. waxoon naa leen li dëkk yi mu sancoon ak li taxoon mu sanc ko te dara génnu ca jàngale ak liggéeyal Serigne Touba ak yar ñoñam ak jéem leen a def nag ay murid saalix te yàlla dimbali na ko ca ña ko toppoon ñépp def na leen ay murid saadix réussir na ren nag damaa fas yéenee wax lenn ci jëf yu rëy yooyu lim ko jural li mu ci am la ci jële jële na ci jëfam yu rëy yooyu képp ko aju ci moom bu faatoo texe jële na ci jëf yu rëy yooyu ko xam turam wa du lakk lu ma la wax nag waxi Serigne Touba la wala waxi Cheikh Mahamadou Lamine jum jum ko wax mu dégg jële na ci jëfum yu ne yooyu barab bii ñu taxaw di wax ak yéen képp ko dox ba agsi fi aaju joo indi suñu borom faj ko jële na ci bokk ca gaayu kawe ya jële na ci am ci payub malaayika jële na ci am ay sët yu mel ni xuseynu ak xasan jële na ci njaboot gu sax dàkk ci siraatal mustaqim njaboot gu doylu njaboot gu maandu njaboot gu doyloo alxuraan njaboot gu muñ ci ak rëy njaboot gu bew njaboot goo xam ne suñ borom jégg musal na leen ci ak bew jële na ci mbooleem li Sëriñ Tuubaa jële woon fi boroomam te di ko séddale kenn ëppale wu ci ndax Sëriñ Tuubaa dafa bari yu xew léegi te bokkut ak nag lam lam jële ci boroomam bokkut ak li muy seddale Tuubaa boobu it doy na nu te doy loo na nu leneen lu keneen ñu séddale na ko téye bu gisee ko ko soxla mu jox ko magum sëriñ ñaan gii ren la ci soixante-quatorzième anniversaire musula am cérémonie officielle na leer bi ko ndax bi fi sëriñ bi jógee la ko bàyyi sëriñ Jóob ñaan taxawal di ko def 41 ba 85 bi mu fi jógee Serigne Mouhamadou Sanna Diop di ko def ba 2000 bi mu fi jógee Serigne Cheikh Fall mii yàlla fi yàgg tawéer di ko def ba nëgëni si amul ku mën a taxaw laa wax na sama baat ca kaw ne dem na ci màggalug Serigne ñaan soo ko defee fan ko jaar ñëw Serigne Touba danoo gën a lépp kii doon wax léegi wax na ko fii lu ne ku ne mën ko ko fee génnee ko xam lu ne man sax bu may daaneel boo moytuwul ci ay grec laa koy daaneele loolu nag suñu jàmbaari lislaam di Serigne Niane ñu ko fàggul noonu ñii li muy réy réy ci bàkku noonu moom ci bàkku defuñ ci dara Serigne Niane ko fàggul te it moom mbiram dafa yéeme ci lépp ajjanaam it lu am la serigne ci jël len jëlal machine mo ni buñ ne len passe passeport na lan la ngeen xasi da ngeen di wax wax len ko ci kaw jaawal <laughs> jëlal ma ñaan job ñaata la jëlal machine 65 deug la wala du deug bo jëlé dara bi allah ala allah bila taqarrur wa umri taqabala boole ko ak kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillaahi bihi sakkantu juróom benn fukki araf ak juróom la lay jox nga jël jaawatu laaha bi kitaabihi ila jan na boole ko jaawatu rabbi bi lisaani arabi bila nihayatin wa tabatku rabbi mu jox la juróom benn fukki xaraf ak juróom daa am leneen luy ñëw te léegi man bayit bu jëkku jëwatu rek dama ci am ñaan dama ci am jiim ak alif ak nuun jaa moyen jan ak baba moo ci gën a neex faral noonu nga foofu ñaan am na ko daan fu muy jëlee jóob danaa ko indi te jaawartu gu mujj ga <laughs> laa xam ni kitaab yi ga ak waawu nuuru lisaan ga ak baawu kitaab ga moo la jox jóob <laughs> man man Ibrahima mii moom àjjana si ñaan dama koo wérantiwu ci biir ëttub sëñ ñaan bii nga xam ne moo ne ci benn ëtt la ci biir ëtt Cheikh Mouhamadou Lamine yi di génn di ci gi Cheikh Mouhamadou kër Cheikh Mouhamadou Lamine di génn kër ci kër kër biir kër Serigne Touba. te sax nag bu dul lii lépp leetar bi jógoon Serigne Touba jaar ci Cheikh Mouhamadou Lamine te jóge te te Serigne bi ko ne ko ci yàlla la boroomam la jóge jaar ci yonente bi te wax ko ca ne ku aju ci yow bu faatoo ba liggéey duñu ko xisaab njabootu Serigne ñaan nga ca biir <laughs> am de kon leneen a ngi noonu encore. te sax bu loolu weesoo lépp dama lay wax benn secret bu gën a tuuti kaso yi ci Sénégal ni mu baree ak ni mu feese ku mën a nangul sëriñ ñaan amu ci kenn war nga koo mën a nangul ba ëllëgee sawara du fa am kenn am de ah wala de xaw ma ko de bokk xaw ma ko de pour yow miy wax sëriñ ñaan mën naa mbooloo ma bëriwul moo tax dee dem déglul ma la lu leer tey nga dégg seetu sëriñ Tuubaa yii ñuy wax ñi ci ëpp sëriñ ñaan mbooloo ëpp juróom maa la wax loolu tey foo dem ci réew mii fekk da nga fa fekk njabootu sëriñ ñaan loolu buuxuma ko ngir dara waaye damaa bëgg ñu xam ne rek lam tànnoon ci sëriñ Touba ak Cheikh Mouhamadou Lamine yàlla defal na ko ko te mooy ak njabootam bàyyi xel ëllëg adduna bii ñu bañ cee nekk di mu leen jaral lu baree bari kon sunu jàmbaar ja wàcc na billaahi wàcc na nun ñii ñoo ci des kon comme waxtu wi dafa jeex damay daanele bayt woowu ma waxoon rek siwaaka lam arju fi sirrin wa fi alanin bi xaqi wajhika xaqi li rajaani ni Sëriñ Tuubaa nag bi mu tolloo fi fii moom tolluwaay la bu mu tolloon di ko wax man nag sama tolluwaay mooy man siwaaka yow Sëriñ Tuubaa lam arju fi sirrin wa fi alanin Sëriñ Tuubaa rek laa yaakaar moom rek laa wóolu moom rek laa doyloo na ko ñëpp bàyyi xel kon kon waxtu wi dafa mel ne xonc na kon xanaa kon damay wax ne rek loolu ma waxoon ci gereg gi rek ne kon efharisto para poli o megalos anthrospos wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu As Mr. Murray is a daughter to greet the Caliph of Serigne Niane Diop, Serigne Cheikh Fall to thank Serigne Moustapha Diop, so and son and join Seri Moustapha Serigne Niane and to congratulate all the family of Seri Bassirou Long life to him. The illustrious godfather in this conference, which marks the beginning of the present edition of the Magal of our respectable grandfather Serigne We don't forget all the parents the friend and the visitor here. So, following the Bayang Arabic version, I have the honor to present you the life and the work of Serinyan Job, Summarized in some lines. At first, who was Serinyan Job? Serinyan Job was born in Warak Job in Cairo in 1869. His first name is Serin Mustafa Job, and her mother name is Samna Rokhayanyang. Both were big servants of Allah and his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Very early, he must read the Quran and acquired the divine knowledge thanks to the help of Seringalai Nguyen Seringalai Nguyen and Sering Mamour Diop, father of Sering Ibrahim Diop Manshar. And during these studies, Seringan often saw Sering Tuba in dreams who ordered him to raise his shelter like in the middle of the bush. I remind you that at time, Tuba was practically an almost blank forest, and to people who often asked him what way of use these shelters, he answered that they preparing them from Sheikh Ahmad Bamba Hadim Basur. After these studies, he installed a Quranic school to teach in the Quran and the Islamic, in the Islamic science He gave gifts di tàmbale nuyoo bi ak siyaar bi ci ki nga xam ne mooy kilifa ak yoon bi di Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan sunu borom yàggal ko fi ba mu matal mboolem naal yi mu naalal Cheikhul Xadim ak lislaam bi yëpp mu defal loolu it njabootu Xaadimu Rasuul yëpp ak taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ni ñu ko xamee ñu ngi fàttaliku kenn ci jàmbaari Cheikhul Khadim yi nga xam ne bokk nañ ci ñi taxoon sunu borom naan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum te ku gis jataay bi ci mbooloo mi nga xam ne lii lenn la ci activité yi nga xam ne waajtaayu bisub sëriñam la day dëggal loolu ma wax ne bokk na ci ñi taxoon sunu borom doon wax sadaqu ma ahadullah alayhi muy conférence bii nga xam ne njabootuk sëriñam jóg ñoo ko taxawal di ay sët ak i taalibe yu àndaloo ngir fàttaliku koo xam ne ku ñu war a di fàttali la ngir mu nekk royukaay ci ndaw ñi ak ñi nga xam ne dañoo fasoo jubal te am pas-pas ci Sëriñ Tuba ni ko ñëpp xame at mu jot ñu darajaale ko kenn ci jabootu Cheikh Mouhamadul Amin ni ma ko waxee la tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Hafiz ba tey jii ren mu dëppoo kenn ci ñoom muy Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Bara ñu gën koo xam ci Serigne Bachir Maguette Lo muy gis boo xam ne kawe na ci moom te jëf ji xëy na am na ci lu ko yëm waaye nee na amut lu ko ci bett ngir bisub sëriñ ñaan ñu tuddee ko doomu Cheikh Mouhamadou Lamine li arab naan laa xarwa xëy na manees na du du kéemtaan bi mu demee ba yable it bi mu ma woowee daf ne ma daanaka manoon ñoom ña fa nekk kenn ku ci nekk ci ñoom man nga ma faa représenté ba tuddal ma ci ñaari nit kenn ki xam naa ko muy sëñ Habib Diop ki ci des xam naa maa ngi koy soo gis muy sañ Lamp mu ne ma ak njaboot gi yëpp kenn ku ci nekk rek boo fa ne boo fa nekkoon rek mel na ne man nga fa nekk ñëw gi nag ni ma ko waxee léegi xëy na njabootu sëriñ ñaan gi ñi fi nekk kenn ku ci nekk doyal na sëkk représenté ko fi ngir xëy na sëñ ñaan xamuñu ko waaye doxalin wi ñu gis ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine xam nañ ne macha allah ku yàlla barkeel la néew na kër sëriñ Baara booy gis te gisoo fa ku bokk ci sëriñ ñaan jóg loolu it day wane jagleegum amoon ak jaxasoo boo xam ne amoon na ko ci diggante moom ak Cheikh Mouhamadul Amin ci boole gi leen Serigne Touba boole woon mu mel na it kóllëre googu njabootuk Serigne ñaan gi ñi ngi koy sàmm ba tey ndax lii lenn la ci preuve yooyu te xam nañ ne kóllëre lu suñ borom di bàyyi xel ëllëg la wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula mu doon loo xam ne moom ci boppam nee na moo naroon a ñëwal boppam ndax jàppoon na ne période bi dana ko fekk tuba waaye ngam gum doon def barki démb xam naa ci la jóge mel ne xaw a yëg ak di si yaramam loolu moo waral yabal gii mu ñu fi yabal mu ne nag sant na loolu ci cër bii ñu ko cërale ci bisub Serigne Niane Diop bii di ci gërëm waa kër Serigne Niane ak waa kër Cheikh Mouhamadul Amine gépp waaye it di leen ci ñaanal di ñaanal ngir yàgg koo def ñu yàgg ko fekkee ci barkeb Cheikh Mouhamadou Lamine ay barkeb sëriñ ñaan mi nga xam ne wax dëgg ni ma ko waxee léegi xay na ba mu fi jógee yàgg na te xëy na li ñu fi dégg ci discours yi nga xam ne jot na fee jàll mel na ne ku ko gënoon liñ naan médiatiser doon na ci am solo ñu di ko dénk sëti sëriñ ñaan yi su ndax doon na koo xam ne jamono jii ñu nekk surtout laaj na ko lool ci ñu def ko misaal moo xam ne ku ñu war a looy la ci ak taalube rawatina waaye ci koo xam ne it ku am ngor ak jom la te daan dundew ñaxam dégg nañ ko ci discours yi ndax ku ànd ak Serigne Touba mu boole la ak Cheikh Mouhamadul Amin nga jógee fi 1941 Cheikh Abdoulahi Mbacke taxaw la kooku mën nañ ne ak dundam lépp génn Serigne tubaa génn njabootuk Serigne tubaa kon noo ngi leen di sant di jéggalu kàddu yi ndax kàddu la yoo xam ne gis naa ci mbooloo mi xëy na ñoo ma gënoon a yey ci jottaleen ko Cheikh Mouhamadul Bachir maa ngi jéggalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ma ngi ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di jéggalu kàddu yi nga xam ne ñoo ngi ko yëkkati ci kanamu kilifa yi muy kaddu yu dis lool waaye nag lu mu dis dis diis danañ ko jéem a jëfe rek ndax daa tënku ci ndigal te murit moom ndigal rek kon kaddu yi du weesu kaddu yoo xamante ne bii ki nga xamante ne bii moo jiite daaira Ahfad Serigne Niane Diop di Serigne Xaarim Diop soldaaru Serigne Niane moo joxe ndigal ñu jotli ko muy loo xam ne moo na ko dàqal fuuf waaye nag mënuñ ci dara ndax ñun moom ndigal rek lañu doxee kàddu yi kàddu yi calt la rek cant yoo xamante ne bii dañ ciy jiital sunu kilifa yi nga xamante ne bii ñoom lañu yàlla booleel ginnaaw ba nga xamante ne bii kàddu yoo ko waroon a jiitu mu aju ci ay kilifa yu ñu waroon a sant mu mel ne sëñ Moxtaar jaar fi ba jàllale ko kon ñun dañuy tàmbali rek cant yi ci sunu xalif général muy Serigne Cheikh Fall Diop xalif Serigne Ñaan Diop di ko sant bu baax a baax di ko gërëm di ñaan yàlla suñu borom tabaaraka yokk aw fanam lépp loo xamante ni bii bëgg na ko liggéeyal sëriñ ñaan suñ boroom defal ko ko di ko ñaanal mu dëgëral ko kàttanal ko ba mu sottal ko ak képp ku ko yéeneel di sant bu baax a baax a baax sëriñ Moustapha jóob di jëwlinam fii ci kër sëriñ ñaan wala fii ci Touba. wala ci njabootu sëñ ñaan gi yëpp rek di ko sant bu baax a baax di sant sëriñ Mouhamadou jóob Njañ xalif sëriñ Cerno Diop di sant sëriñ Lamp Diop Ibrahima xalif sëriñ Diop ñaan di sant sëriñ Abdul Aziz xalif sëriñ Sànna Diop di sant tamit sëriñ ñaan Diop xalif Baye Mbaye Diop di sant sëriñ Mouhamadou Diop xalif sëriñ Abdoul Aziz Diop ak mbooleem soxna yi nga xamante ni bii ñoo askanoo ci sëriñ ñaan Diop ak taalibe yépp rek ñooñu buñ ci tuddee soxna Xujja Diop ak soxna yaa Ndey Njaay ak soxna bintu cierno da melé kon dañuy tek cant gi seen loxo rek ñu jàllale na ko ci mbooleem njaboot ak suñu ñaan yëpp laaj ci soxna yi ak taalibe yëpp di sante mbooleem képp ku xamante bi japp na ci bis bi mo xam seut la ci suñu ñaan mo xam taalibe la suñu ñaan mo xam soppé la ci suñu ñaan ndax daayira bi dañuy wax ne nekkatul daayira bo xam dañ nan xëy na dañ naan daayira sëti sëñ ñaan waaye daayira bi ñett ñoo ci nekk di liggéey muy sëti sëñ ñaan ak soppee sëñ ñaan ak taalibey sëñ ñaan kon defe naa ne sëñ bi maa ngi jéggalu bu baax a baax kàddu yi lépp loo xamante ni dëgg na ci ñoo xam ne sunu tële la waaye lépp la ci mat rek ñoo xam ne ndimbalal suñu borom tabaraka taala la kon alhamdulilah alhamdulilah déwénati